candidat am nañ candidat ñun Amadou Ba mooy suñu candidat. Rufisque, qui est une ville traditionnelle mais une ville moderne aussi il y a un mois ñëw naa fi lancé les travaux du PSD le programme spécial de désenclavement je voulais vous dire ici solennellement ces travaux qui vont révolutionner Rufisque qui vont permettre de régler les problèmes d'assainissement les problèmes de voirie et de circulation Ces travaux seront achevés dans les délais requis. Toutes les villes du senegal seront modernisées. man nag du toxal capital bi est-ce que vous êtes d'accord est-ce que vous êtes d'accord waa Dakar yéen lay waxal historiquement Dakar mooy capitale du Sénégal ñu am ci un consensus fort mais toutes les villes du Sénégal toutes les villes du Sénégal méritent d'être modernisées mais nag man du ma toxal capital waa Dakar nag yéen a xam su ngeen bëggee mu toxu ah déet fan lay des fii fii kon sa problème est réglé yéen a ko war a réglé dimanche mooy ñi nga xam ni dañuy ñëw avec des idées farfelues di naxaate ngeen ne leen leen suñu jàmm li ñuy dundee ñu dundee noonu kon Dakar va rester la capitale du Sénégal Ismaïla yaa ko bindoon ci constitution bi Dakar va rester la capitale du Sénégal m'adressant aux jeunes je veux vous dire que je serai le président de l'emploi des jeunes le président de la prospérité partagée le président des femmes merci merci